daf lay gën a motiver day tax nga gën a xam ni t'as pas droit à donc di ñaan yàlla yàlla bu yàlla tas yaakaar su mbégte la tey ak bisu ma ndax mbégte yi mu umb tey dafa bari yàlla suñu borom jox la du tànk rek mbégte la waaye nag mbégte mi ngay jël di ko tuddee sa yaay mbégte gënu koo gën a mën a rëy kon ñaari mbégte la mbégte mi ñuy tuddee suñu yaay ji Kiné Diouf Diaga waaye mbégte mi nga xamante ni tey yàlla suñu borom jox ñu ko muy tuut tànk boo xamante ni macha allah moom moomin la xamul dara ñu koy ñaanal yàlla suñu borom def ko mag mu fekkee déwén fekkee ay njëriñu waajuram wax dëgg yàlla dund bay yóbbu papaam ak yaayam màkka maamam fekkee lépp kenn bañ a manqué bépp jullit yàlla suñu borom mën na ko te du ko wàññi dara donc yàlla ko yàlla suñu borom def yow mi yàgg Ramadan booy gis à gën a yaatu di gën a élargir ah tête yu bees di ñëwaat eh, yéen yëg-yëg am gis nañu bi waaw loolu dañ ci sant yàlla parce que Ramadan ki ko yor xolam géej la ku xaj na ci te moom xam na loolu moom xam na ni ay mbiram lépp mission la képp ku ci mission bi rek yaa ngi ci biir te moom soxorul iñaanul ku ñëw dina partagé ak yow li fi ne mu néew ak mu bari te yaakaar nañ ni réew mi fii amul ku gën a rëy xool Wally Ballago Seck ci réew loolu moom lu yàlla suñu borom def la lu ni fàng la kenn dootu ko jeex parce que nag deful dara dina ba donc mbégte ak bànneex daal bisu tey jii kontaan Ramadan ca kaw ca kanam ci lu baax. ren nag moom di ngeen gis ay surprise yu bëree bëri bëri. waaw nee na surprise yow nga ñëwaat ne surprise. waaw ay surprise yu ci musique wala ci concert. ci lépp xam nga daaw dañoo defoon pause deux mois. ren amul pause. ren Ramadan amul pause. dinañu màggali nag. waaw ñëw bu ñu màggalee continuer gàmmu ñëw. ñu gàmm ji ñëw bu ñu paree enchaîné. mais li ngeen bëgg a yéen gars yi dina diis de. jamono ni toll diis na rek ngeen bëgg ci tollaat tegal leneen. jamono ni toll yëf yee ko laaj yëf yee ko laaj. macha allah waaw kontaan nañu. tawféex jaajëf. moo tax sooy wax si waal dañuy yëg sa xool di génn ngay bekk parce que te te Ramadaan njëkkoo fa gënoo fa yàgg ñëpp mais sa à chaque fois da wax. waaw parce que dëgg rek mooy dëgg xam mooy ni ko ni ko xalaatee noonu ba laaj ma ko ba xam ba yow ba mu dugg sa xool parce que dañ ne nit ki lépp lu mu wax te dëgguwul ci moom rek jógewul ci xol du jóge ci xol noonu la demee nag ah. ni mu def nii rek noonu la demee nag kon barki rek bi ñuy voyage barke Cheikh Ahmadou Bamba li mu lépp nii la demee dañuy ànd ak moom nag te jéppiwuñu ko te merewuñu ko te kon rafet na bu nit ñi toogee ñu xamal jaamu yàlla yi ñu leen ñun suñu patron bi ñu yàlla booleen kontaan nañ ci moom ah yow télé bi ngay liggéey boo kontaanee sa patron xam nga boo kontaanul xam nga. naa moom waaw bëgg nga ci moom yaa ngi ni xam ko barki Rasulaay bëgg ko moo tax xam naa ne guddee ngaa tëdd teel ngaa nga liggéey man leer na ma ni tëddoo une heure tëddoo deux heures tëdd nga trois heures wala oh, quatre heures barki teel a ñëw liggéey si gëm sa patron moo tax kon bu la yàlla boolee patron boo xam ni dencul dërëm lëbbu dërëm lu mu am jox la ngeen séq liggéey amoo amaloo amalu la benn waale amuluñu au contraire barke Seydina Mouhamad ñoo war a mbalax ba sunu yëre yu tooy yi yàlla dëgg rek la bëgg nag. mu am sensu ñu koy tëggal bëgg ko. Ah. wax na ko ci interview mu ne ñi koy tëggal dañ koy tëgg moom muy gis ni ñii dañ koo bëgg. ah, ah ñii da leen xool di jooy. dëgg la ku mel ni yow da nga koy xool jooy. dëgg la ah, Cheikh Anta bu am daan gépp nag. Issa Mbaye ñun ñooy premier fan su waale. <laughs> yow da ngaa fa waale. ñëpp nag vidéo bu maray nga nekk ci météo di di mel si lap. barke dëgg la euh, Suède. waaw Suède. daa dugg si ma xool ko rek daa di dox ma ne mais mais xaalis sama musicien nga ma ne ko waaye wéru musicien bu la fan la isa comprendre nga loolu lépp moom la rek parce que tey bu tëjoon affaire yi yam ak ñun ci wàllu liggéey kon loolu du am mais daa tijji lépp comprendre nga waaw dafa tijji lépp yàlla ne waaw waa nee na euh, Mbaye si Ndiaye am na fitu denk ko Ramdan dëgg wax na dëgg wax na dëgg Mbaye si waale bu ne am na fitu dénk Mbaye si Ramdan waale juumul de hmm. Mbaye si dafa rek la nekkee Ramdan barke Seydina Mouhamad mbay si da ngay da ngay da ngay gis sax ku war a am benn affaire boo kii rek mbay la kaay yëkkati alalam jox la waali wax na dëgg de moo tax ma la waali doful xam na lépp am na fit dénk mbay si daan googu du waxu hasard lu ne ci mbay si te li mu waxal ci mbay si loolu moo doon mbay si am na xol bu rafet man rek jaar naa mbay si jaar naa man foo xam ne kenn su ko gis barke laa ji baar yàlla na yàlla guddal fanam lu tax ñëpp ramdaan lañ bëgg a ñëw Ndeye Ndiaye ñëw na tey mu neex waaw xam nga nag ramdaan nag ah? Ramadaan nag ram lu ne Ramadaan. siru siraat siraat. siraat nga ñëw. mais li problème bi. Ramadaan nag. ah Ramadaan a neex. mais mais est neex. waaw lépp nga ca ak oto yi. lépp nga ca lépp nga ca xam nga nag gars yi dañoo bëgg teraanga. waaw te fu teraanga nekk gars yi wëri ji ko yàlla na yàlla def jàmm. Euh, euh, ki nga xam ni moo di sunu xarit euh, di sunu lépp bokk ci daan moom nag bu teewee ci ngénte waali duñ ne lu tax parce que lu waali wëy moom moo ko këral muy waali sama xarit bu baax bi maa ngi lay maa ngay delloo siyaar Kumba. yaa ngi si jàpp sant Serigne Touba wér nga ñëwee am na émission waaw mais dara mbégte la rek mbégte la rek. voilà di ñaanal gan gi gan gi fi teewee yàlla may ko gudd fan ak wér. may ko taw fii tey si ah. di ñaanal ñi fi teew ñëpp ñëpp ñëpp yàlla dafa leen jàmm. Sénégal yàlla fi jàmm yàgg. sànq ma dégg Waly mu ni euh, euh, euh, am na fitu dénk Ramdaan li nga xam ne moom moo di Mbaye si Ndiaye. kàddu yooyu noo ko yëg. waaw mais loolu ça dafa dafa am confiance ci ñi muy liggéeyal. voilà Ramadane ku si gën a tuuti leader la. loolu moo tax loolu mooy parce que moom mi jiite. tàggat na kenn ci nekk ci ñun te demee jom fulla ak fayda donc loolu ku ko yor amaana mën ngaa jiite groupe leader nga donc moo tax mu ne moom sañ naa dénk Mbaye si Ndiaye Ramadane donc kon ça montre que Ramadane ñëpp ay leader lañu voilà. yow mi liggéey Waly kan mooy Waly. Wally daal li ma la mën a mooy euh, nit ku yàlla baaxal la xam nga nit moom bu la yàlla baaxalee baax moo ëmb lép yaru am yitte am kett ci nit ñi jox ñëpp respect yéwén donc ku yàlla baaxal la c'est un don du donc man je dis je le dis et je le répète bu ñu amoon ñett yu mel moom je dirais pas cinq ñett yi rek mel na moom donc yu bari dina gën a neex boobu ci suñu biir voilà parce que ku am yërmande la ku am yëg-yëg ci nit la ku ku ku baax la baax au vrai sens du terme muy Wally Ballago Seck ñuy liggéey moom xam nañu ko je pense que bu ñu waxee ci moom on est mieux apte pour wax ci moom ndax xam na nañu ko donc li temps bi ñuy passé ñu ngi ko passé si suñu famille donc yal na ko yàlla sàmm man mii di wax ak yow li defal na ma loo xam ne donc mënu ma sax toog di ko wax ci kalamu kii voilà parce que parce que gis nga tukki dafa neex ki la fekk nga toog la jël sa passeport def ci ay Schengen néeg yu tegaloo yëkkati di la fay xaalis bu bari di la jox teraanga boo xewlee barki démb laay tudd sama doom bu yëkkati teraanga bu bari jox ma teew da jëmmal ma loolu dafa neex ci xol donc moom du ma ko wax dañ koy ñaanal yàlla may gudd fan ak wér rek mooy ko mbooleem juri di ci kanam raw li bët commencé ko ñu sax dig nañu ay surprise de dooma dee surprise ngir yàlla rek sama xarit nga de kan ci waale dig na ma ay surprise si sax moom